jóg ngir Sénégal mooy plateforme bu yees bi nga xam ne dafa dogu ngir ñu amal ay élection yu wér te wóor mu dal di amal ab ndaje ak ñëpp ñuy yëngu ci wàll wi ci mbirum processus électoral loolee nag may candidat yi nga xam ne ñoom la ñu téye ñu dal di dikk ci seeni naqar doonoon fi ministre ak député moom nag li muy sàkk mooy ñu dal di dakkal ni ñu amalee parrainage. problème bi loolu rek la pour mu tànn ay adversaire tànn ñan lay war a jonganteel mu ngi tànn te pareegul. te man dama considéré ni lim ma daan def depuis muy jàll rek moom la continué di ma def. ci beneen wàll ga Abdourahmane Diouf moom nag li may ñaawlu ni ñuy saytoo parrainage yi ci ñenn ci candidats yi nga xam ne dañoo jàpp ne seen fichier kenn mënu koo xool. mon informaticien a eu la présence d'esprit de dire mais écoutez il y a un problème d'encodage ce que je vois là c'est pas ce que je vous ai remis et mon informaticien m'a dit que il lui suffit d'une loolu ñu corriger ko pour ñu defal ma un bon contrôle Et le moment où M. Badio Kamara dit imprimer, imprimer le procès verbal après s'il le faut on appelle les gendarmes pour dégager c'est une minute. moom fi nekkoon élimaanu jëwriñ ñi ne moom jàpp na ne xel mënula nangu parrain yoo xam ne voté nañu ci élection législative yu 2022 yi kenn gisul seeni tur ci fichier électoral bi. ñu ne ñu non am ngeen 10 yoo xam ne kenn gisu ko ci fichier ci wàllu parrainage du ma ci apparenté quand même président ba muy uti réélection dafa bàyyi borom mbaxane yeeg sama moo tax ñi nga xam ne ñoo taxawal plateforme bi di jóg ngir Sénégal jàpp nañu ne ngir fexe ba jëlee fi jafe-jafe yooyu nga xam ne dañu koy am ci processus électoral bi dafa jot ñu dal di supprimer système de parrainage yi dal di amal loi bu yees bu article bu constitution bi waxee muy fexe ba ñu xool naka la ñuy taxawalee partie politique def ci ay conditions yu gën a metti yu gën a tar ak yeneen recommandation